Afrique daal xam naa ni yomb na daal pour nga am fi milliard moom Afrique te ñi am yi milliard maanaam duñ ko doon seen ndey duñ ko doon seen baay de ngeen baal ma doo gis benn société boo xam ne wala doo gis ay tool yoo xam ne ñi est xam na ñi doon ay milliardaire fi ne jaar ba am benn milliard ñoom ñu yor ci ay milliard ma ne ñaar ñii daal ku leen yëlëb bu soobee yàlla Sénégal mën na faa jaare suqali ko jël ci xaalis a bari ñii bu kenn baal ñii nañ delloo sénégalais yi xaalis bi parce que sénégalais yee ko moom mais man yii milliards kan moo ko mën a yor 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem képp koo xam yaa ngi topp sunu site bi di 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi nga xam dañ leen koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di siyaar way leen di topp faal 94 Walf euh, Sénégal voilà xam nga euh, Afrique de l'Ouest moom Sénégal moom. Euh, chaque jour saa su nekk ñu ngi fiy tudd ay milliards te ñi ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ne ñoo yor milliards yi ay xale yu ndaw lañ demagun fenn xam nga ñaar ñii moom respecté wun sénégalais yi moom bu ñu waxalee yàlla rek xaadim ba moom a baayam sax mën na koo voilà topp waaye vie privée moom jëriñu ci dugg waaye xam naa ne daal yàpp nan sénégalais yi damaa xam ne yow bu fekkee yow ay milliards lañ lay jiiñ nga mën a mën a yëkkate 67 milliards teg ci table yi mais ñii kan lañ yàpp ñuy jooy ay di jooy ay école ni ñi bu nu añee duñu reeral bu ñu reeree duñu ndékki nga yor ay milliards yoo mais yow est-ce que foo koy lekkee jee fan ngay lekkee jee yi milliards yow 67 milliards ku ko mën a yëkkati kan kooku laneen lam desal moom nan la toll ci ñoo xam munoo wax lan lan lan lan lan mooy seen métier professionnel lan lan mooy seen entreprise loolu xanaa ñu doon nekk seen baay te seen baay boobee wala seen yaay avant ñuy avant ñuy doon milliardaire lu nekk daj nañ ko te yaakaar naa ne boo gëstoo ba ci biir bu nu amee un milliard du doon deux bu doonee deux du doon trois ay milliards mu dul ay caaxaan ay milliards du ay caaxaan Sénégal nag moom xam nga pour nga doon fi milliardaire wala pour nga rawale ay milliards fa yomb xam nga état yi fi jaaroon wax dëgg yàlla li yëpp ñoo ñu ko teg saa ñu jàppale réew mi saa ñuy jël baykat yi ñu def leen ay milliardaire maanaam ay sàcc lañ jël def def leen ay milliardaires xam bu dee ci réew yu sérieux yi baykat yaay milliardaires yi ndax baykat yi sa normal dañuy bay ay hectares voilà ay hectares et hectares voilà te luñ soxla dañ te nag attention du ay milliards lañu yor de <laughs> non sama waa ji nag da ngay gis ñoo xam ne dañ naan yor na yoreel nañ Sénégalais yi vingt neuf milliards voilà bu demee ba ne Xaadim Ba mii soixante sept milliards mën na koo teg léegi maanaam tey Euh, na ñu xool ati xaadim euh, ba bi mu daree liggéey ba fii mu toll tey ba mu mën a génn 67 milliards teg ko ci table ji te xam naan fu mu génnee 67 miliare moom am na ay yeneeni milliards yoo xam ma nga à côté léegi ñu génne nag léegi ati xaadim ba ci 67 milliards yooyu kese te la des waxuñu ko xam nga maanaam réew mi bis bu nekk maanaam réew mi wallahi réew mi dina sérieux gis nga Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay kenn gënu leen a bëgg réew mi sénégalais yi ndokk ba ngeen tànnee ñaar ñii ndokk ba ngeen tànnee ñaar ñi ñoom it ñu tànn seen euh, euh, seen kuréel goo xam ne ni jàpp na ni ñoom euh, ay liggéeykat lan te danañ doxal liñ leen jox pour ñu liggéey te ñooñu ay liggéeykat lan xam nga ku ci mel ni Mabouba Diagne kenn dootu ko weranteeti moom <laughs> gis ngeen ko ci terrain bi voilà chaque jour sa su nekk kon maanaam régime yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñoom wax dëgg fa yàlla ñoo tayle seen réew boo gisee sénégalais yi naan depuis 1960 ba léegi yëguñu suñ bopp ci réew mi muy sénégalais lem daa yi wax nañ dëgg parce que ak kuréel gu ndaw fi nekk voilà di paaso di paasontoo alalu réew mi voilà di commencé ci Senghor ba ci Abdou Diouf ba ci ab lay Wade ba ci Macky sallo xoolal boobu ba léegi Moustapha Niass ngi barki dee moo Ndiaye lay door a jógee ci politique te est ce na sax te depuis 1960 sa Senghor ba léegi mi ngi mi ngi ngi ci nguur di nguuru nungu ñoo bàyyi kenn dem waaye bu ngeen demee ba tëlee xanaa da ngeen bàyyi voilà xoola xalifa Sall mi bari na ñu fi nekk ñoo xam ci ancien régime yi lañ bokkoon ba léegi ñu ngi téye ay postu ba léegi ñu ngi giiroo euh, Sénégal ba léegi ñu ngi xëccu pour maanaam am postu pour maanaam voilà sénégalais yi nag doy na basta dem leen ngeen seete lu ngeen def dem leen jaamu ji yàlla des seen dund gi voilà Sénégal yi moom doyal nañ sëkk ci yéen voilà la nouvelle génération bii nag ñoo ma bett classement mbay ñaay yi ak xaadim ba mi nga xam ne ñoom heure bi waroon naa fekk ñu defar seen réew jàppale ndaw ñi jàppale jeunesse bi wala ñu jël alal jëpp xabaat ko ci biir réew mi muy seen fierté di seen image di seen lépp nga xam ne bu ëllëgee mu nekk aw way waaye fi mu toll bàyyi ngeen fi way woo xam ne ne dootul fay mukk voilà jamonoy Macky Sall Mame Mbaye Niang nee na woon fuuf vingt neuf milliards vingt neuf milliards yi Sénégalais yi ñu ne vingt neuf milliards yi Mame ko jëlee ñu ne du société bu am du ay toolam yu muy bay doon na ko ci baay doon na ko ci yaay fan la ko jëlee ci Sénégalais yi voilà nga xam ne loolu ay histoire la yoo xam ne ëllëg dañ koy nettali soo waay fii moom dara du fi ak neen lu fi def rek ëllëg danañ la ko nettali voilà ngeen gis Sénégal euh, voilà fi mu toll tey nga xam ne tey jii jafe-jafe yi Sénégal nekk tey yéen a ñu ko yóbbee yéen xameewu leen sax lu ngeen moom ak lu keneen moom voilà loolu mooy xamu leen dara seen bopp yi ndox nekku ci yéen daal li ngeen xam ci xaalis mooy na bari rek mu nekk ci compte yi ngeen koy xool ngeen i dem ci dëkk yi di noos ngeen yor ay immeuble ñu leen di dar naan leen nangam di leen tagg ngeen di ay cinq mille francs di maye ay saako ceeb wala ngeen jàpp ne loolu mooy saxati wéy xam nga loolu nit ku nite sax du ko def voilà loolu ngeen bëgg mais loolu jeex na ndax ñii moom dañoo pare pour ànd ak sénégalais yi jàpp leen jàppale leen sénégalais lam daal bu ci nekk di mën a gis bopp sa bopp bu baax a baax a baax a baax ci réew mi waaye nag bala ngeen a tàqalikoog ñoom da ngeen xam ne lépp dëgg la xaalis bi da ngeen ko génne de ndegam xaadim ba lañ mën a téye mooy génne ay 67 milliards du ko teg ci table ji ko xam nga ni moos bala moo tàqali ko gaa yi danañ xam ne lépp dëgg ay milliards kenn du ko caaxaane yéen da di caaxaane sénégalais rek am kenn du ko caaxaane am réew kenn du ko caaxaane waaw da ngeen xamut am réew rek réew mu sérieux ñu sérieux yor la yor ko bu ngeen xamoon du ngeen caaxaane réew mi sénégalais yi moom duñ leen baal moom buñ leen naroon a baal sax sénégalais yi génn ci ñi ba man maa la wax li sénégalais yi fi mu toll ni bu ngeen xamoon liñ leen mere ci ay xale yo ndaw yoo xam buñ génnee seeni at li ngeen dajale ci xaalis dafa dafa dafa doy waar goree di mënta weesu lii voilà kon yaakaar naa ni sénégalais yi na seen xel dal ah xam ni voilà Bassirou Diomaye Faye moom ak Ousmane Sonko moom a ah, ay nit lan yoo xam ne ni jël nañ réew mi message yi nga xam ne nag daan nañ ko lancé voilà ñëpp daan nañ ko dégg voilà alal joo xam ne alalu sénégalais yi la dañ ko indiwaat ci sénégalais yi delloo ko ci biir sénégalais yi loolu yaakaar naa yàgg ngeen koy dégg ci discours Ousmane Sonko voilà espace public bi fi waaye jël te moomoo ko danañ ko nangu delloowaat ko sénégalais yi voilà parce que yéen xameewu leen sax espace boo xam ne réservé la war a doon pour ëllëg suñuy doom wala suñuy sët yéen daal fu ngeen gis gratte-ciel rek daaj fa seen yoon nekkut ci réservé moo tax daara daara xamu leen ko mais da ngeen ren euh, remboursé bu baax a baax baax